yonent bi di sant Cheikhul Khadim di sant mbooloo mi fi daje lépp ak initiateur bi nga xam ne moo ko initié tey di gërëm ñëpp di leen wax xamal ne ñun mbale mi président de la république santaane avant mu koy def soccet moom bañ naan jatu leen fekk na ko mu jatu ndax ñun Touba ku ñu xam-xam nañu xam ñu ci bale problème bi ñu amoon mooy dépôt sauvage yi lañ amuloon euh, fu ñu koy yóbbuwaat moo nekkoon suñu problème waaye bale du suñu problème ak garage yi nga xam ne comme garage bi nga xam ne dafa rëy amuñu ñaari kees lañ am te kees yi oto bi peut-être bu ñëwee tey wala wala mu ci suba ga du ñëw ñoom ak ruq yeeg ruqaan yi moo taxoon mu am mbalit mu toll nii waaye ñun ku ñu xam ñun waa Touba xam ñu ci bale garage bi ñëw nañ fi bale ñëwaat fi bale bu dul benn du ñaari gis leen ñoom it ñuy bale ñun ci bale lañ dëkk ndax sëriñ Modou Moustapha ba muy wax naan nañ ko xamoon li ci bale Touba dootoo wuti beneen liggéey bu dul bale sunuy maam dañ ko doon bale kenn ku nekk di barkeeloo bale Touba kon ñun ñeneen lañuy wax waxu bale waaye du ñun waa Touba ñu ngi leen di sant leen gërëm xam ne bale dañ ñu jee fekk bët daa ñuy bale